player Tafa Diop tey playback bi. Ah. Mm-hmm. ok ba tey uh, téléphone yaa ngi open 4373910 um, call leen uh, ñu waxtaan fii ci biir studio bi hello dafa mel ni dañu am call hello hello waaw ba tey uh, call leen rek gaa yi nga try because yaakaar naa ne nañ bëgg a seen fan bi nekk ci biir. studio bi fii lëlbin yow bi nga commencé woy nu mu fa taajoo woon bu maay commencé wooy dama am first of all xaaral ma ñaanal suma yaay hmm. because dafa nekk nit koo xam ne dafa ma support ba tey hmm. yal ko yàlla yërëm yàlla xajee ko ajana deri no hmm. flyer waaw suma yaay dafa nekk koo xam ne dafa ma support awa suma music bi dafa mel ne am nañ koola hello awa naa awa yaa ah dañ ko oyofal nii rek jërëjëf. lil bi nakam. maa ngi fay nakam. waaye a ah, man track bi laa bëgg nga startaat ko. dayalu. track bi de. waaw. amul benn problème MCR mu ngeen a rewind track bi. ñun loo leen bëgg waaw ñu seetaan ko ba mu jeex. ah. waaw ñu enjoy ko. ngeen enjoy ko no bu wax dara. waaw ba mu jeex full track bi la ñoo. <laughs> track bi dinañ leen ko play dañ leen mosaloon noonu rek. ndax ngeen mun a call tamit ñu waxtaan ah, ndeysaan sa yaay dafa génn àdduna waaw su ma yaay dafa génn àdduna ah, amagul woon yàggul waaw waaw dëgg la si février bi la gaañu te suma yaay dafa nekk koo xam ne dafa ma support si music bi dafa ma support definitely mm. so bu mu dee dafa gën a tax may push because nekkoon na koo xam ne dafa gëm si dafa gëm lu may def so du dee ma war a relax dafa dee ma gën a am le fen push pour dem di ñaan fans yi tamit mu ñaanal ma because ñaani wajur is very important des maa génne na so ma papa tamit the same thing so ma ngay ñaan everybody yeah wow affaire be easy wood then you have to be very very strong mm-hmm. it's it's not easy pour ñaka ya ñaka papa definitely wow why? ba tay rek ñi ñaan fi ko am nit rek am nga yep definitely hello caller hello naka nga def jaama rek aw jabaate naka ngoon ngon ngoon saa ini yéen a ngi nice. jërëjëf. naa nga tudd a foo ñu koole gis naa ne daal mu ngi def lu rafet mu ngi def lu nice. Mm-hmm. thank you. okole ñu ngi koo ñaanal mu dem si kanam. thank you jërëjëf waaye yéen pour yéen mu uyu mu uyu jaara mu ngi ko mu ngi nii di bugg a oh, jaara hello. Mm-hmm. yes baby girl. oh baby kontaan naa trop waay yow maa jooyloo. kontaan naa yaay suma nit. <laughs> kontaan naa trop. I know maa gën a kontaan appreciate naa ko. waay suma doomi ndey bu baax thank you so much maam mm-hmm. thank you kontaan naa ok jërëjëf jërëjëf euh, ñu ne support lu important la si nit mm-hmm. ah, soo amee nit yi rek am nga lu nekka ni loo amati rek na la ko nit ñi gënal mu ngi ni nit nit ay garabam nit nit ay garabam ndaxte boo leen toogee di wéy duga studio wéy nit ñi déglu wuñ ko jënduñ seen CD amu leen ku leen encourage doo leen toog si télé nit koo leen wala ngeen toog si radio nit koo leen wala nit gis leen appreciate loo leen def kon jarul ngeen def dara waaw kon ba tax ba tey fans yaa ngi call hello caller hello yeah hello naka nga def yaa ma nga tudd foo ñoo man la Adama Latrikunda. ok naka waa Latrikunda. ñu ngi fay. ok. Ah, lii laa bëgg a waxaat. waaw maa ngi nii Adama nakam. yaa ma nekk lii nakam. maa ngi fine kontaan naa. gis naa subscribe bu neena trop. jërëjëf yëpp pour yéen la rek yëpp pour geen kontaan. li nga li nga naa def ñeen na trop waaye. jërëjëf waaye seen support rek la niit yëpp pour yéen la fans yi rek lañ ko defal. incha allah incha allah ko def. definitely kontaan na Adama yéen yéen tam yéen lañ am soo gisee tey ñuy dem si studio bi pour yéen la waaw loolu lañ gis am pour yéen la <laughs> da ñoo ñaanal rek gën a dem ci kanam lépp bi baax incha allah ñu ah, mm-hmm. yow nga ne comme ça moom moo la daan support bu baax a baax di la push music mm-hmm. fi mu nii um, nekkaatu fi mhm. léegi yow loolu moo laa determine pour nga gën a mun a taxaw góorgóorlu mhm. xam naa ne yombul nag bu baax a baax pour nga stand alone to do everything for yourself mhm. waaye eh, yàlla baax na léegi mun nga ñëw wax ndax am nga keneen aside koo xam ne daf la dee jox ehm, advice you need in terms of music in terms of everything in your life since sa parents yi they are no more ndax am nga loolu man dama believe leena mm. taaw dafa mel ni yaay ak papa Mm. tey soo ñaakee yaay soo demee si koñ sax da ngaa kee kenn as sa yaay. Mm. well man ñaakuma loolu because suma broda si ak suma sista si. suma yaay fu mu nekk génne na àdduna waaye dañ mel ni ñooy suma yaay ku mel ni Rahman. Mm. daf ma dee really support suma music daf ma dee yenn saa yi moo ma yóbbu ba studio. fayal ma paas yóbbu ma ba studio. suma video clip yi everything moo ma dee bindal woy yëpp. so manko get him. then that's good yeah then that's good all you have to do is just keep it up mm-hmm. the sky is the limit mm-hmm. um, Niki so soo lo gom lo def rek gom ko mm-hmm. lu mu yàgga yàgga ñu ne ku yàgga ci teen baak fekk rek te bañ a bàyyi looloo am solo Ali ah, bon rek mooy ñàkk a bugga def ñàkk gom li def loolu dafa am leneen def si sa carrière waaye bu fekkee ne gom def rek foo ko séntu am nañ hello hello naka nga def Wifey. Now go to that phone you're calling. Listen, we love you. Bye. Love you too. Hello? Hello. Mana? Hello? Hello, Nhung La Dega. Mana? How are Wow. Yeah, nice. Ah, Jerry Jeff. Jeff a little bit. Mangi Nidi La Dega. Lizzie, I love you. I love you too. <laughs> I love you Kondana. naa but I like rek euh, ñu ngi ci programme bi fans yaa ngi Like léegi you make ak euh, vidéo bi comme you go kooku waxee rek bëggoon going to ñamalaat you ci vidéo Be you continue with the vidéo bi dañ nañ dellusiwaat. Music. I really need you, baby. I can go a day, I can stay a day without you. It's your girl, Lil Ben. My side every day, every time by my side.